wàññiku Ah, ça nous avance. All right,

Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va bien Ça va Ça va bien C'est quoi là Voilà, sinon. Il faut attendre la coupe. Le vote s'est très bien passé. Les échos aussi qui me parviennent de l'intérieur du pays laissent penser que jusqu'à présent le vote, les conditions sont bonnes. je pense qu'il n'y a pas de doute qu'à l'issue de la journée d'aujourd'hui, on devrait connaître le prochain président de la République. Le moral est comment? Le moral est très bon. Nous avons fait ce que nous avions à faire, c'est de faire le tour du pays, de présenter le, programme, de consolidation, d'approfondissement, euh, d'accélération euh, de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc nous allons améliorée et nous irons plus vite. Ah, ah quel est Je le pense que tout cela va se passer dans de très bonnes conditions et on l'espère. Euh, quel est le message que vous lancez Le message, euh, vous... le message que nous lançons, c'est un message de paix. Le Sénégal nous appartient. Euh, nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous avons compétit. Euh, la campagne électorale s'est bien passée. Quand bien même elle a été courte, en tout cas elle s'est passée dans des conditions assez particulières, elle a été courte. mais dans la sérénité, dans le calme. Il n'y a pas eu de, de, de, de, violence, en tout cas, euh, n'a pas été signalé de violence euh, excessive. Je pense que, je pense que c'est, on peut espérer que tout cela se terminera très bien. Mon souhait le plus ardent, c'est que demain matin, que les Sénégalais puissent connaître le prochain président et qu'ils puissent vaquer tranquillement leurs occupations. Vous êtes confiant pour le premier tour gagner très très très confiant je suis très très confiant. wolof rek nga ñu koy ci vote bi. waaw kon dañuy sant ci yàlla julli ci yonent bi euh, ñëw nañ fii tey ci suba fi ko doon faral di defee woote euh, nañ ko defee gis nañu aussi conditions yi baax na li ñu dégg ci réew mi ba tey jii mooy nit ñaa ngi woote ci jàmm ak salaam. ñu ngi ñaan sénégalais ñu génn dem wote parce que waxtu wi la ñu war a wax waxtu wi la war a tànn ci nga xam ne moom mooy jiite réew mi euh, def nañu campagne électorale ci jàmm ak salaam euh, coow li bari woon na waaye li ci ëpp ci jàmm ak salaam la amee loolu nag mooy Sénégal euh, mën nañ ji werante mën nañ di xëccoo mais ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay ñun ñoo bokk réew mi te réew mi moom important li may ñaan fi mu nekk ni mooy na yëpp jeex ci jàmm ak salaam Euh, suba Sénégal xam kan moo war a nekk président de la république yaakaar nañ ni li nga xam ne ñun wax nañ ko ak li nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne gis nañ ko ci mbooloo jàpp nañ ni ñun ñii la war a nekk euh, waaye suba bëgg naa daal Sénégalais yëpp bu ñu xëyee ku nekk dem ci sa soxla dem ci sa aajo. am nga yaakaar lépp ci jàmm ak salaam. am ko ci ci waaw am naa yaakaar bu baax nag am naa yaakaar bu baax ci li ñu gis li ñu nit ñi woon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm. parce que li ñu nit ñi doon dégloo nit ñu toppee ci campagne bi doon na loo xam ni dal na suñu xelloo li ñu bëgg mooy liggéey bu tàmbali bu gaaw bu ma sañoon suba gannaaw suba gën baa tardé ñu nekk ci liggéey bi ndax réew mi soxla na ko réew mi yitte woon nañ ko xale yi mag ñi jigéen ñi góor ñi Sénégal yëpp bëgg nañu am jàmm loolu dañu wane ci campagne bi Sénégal jàmm lañu bëgg loolu